man ñii du wax seen wax de de de haine et de kii xam nga DJ Ndiak RTS. Mhm. Euh, du temps de des élections euh, Amadou Ba la doon soutenir mom nëbbu ko. Mm. Euh, d'après lima wax ak mom nee def na ñaari émission beglen leen bëgg leen. ko RTS ba day amal ben conférence de presse. Mm. waaw. nee naa ko daal waxtaanal ak ki nga ko seq. <laughs> man daal j'ai vu gis annonce conférence de presse puis ma demandé. dama ne déglu ko jege aussi problème bi du noonu moo tax ma ne dee information. mom hmm. mo bind communiquer am yónnee ko moo tax ma xam nga so ci waxul won sax duma ci wax so ci waxul won duma ci wax moytu len ñi leen di manipuler. non léegi laa yéen journaliste yéen journaliste yu ndaw yi moytu len ñi leen di manipuler. Hmm. moytu len ñi leen di manipuler euh moytu len moytu len parce que information day leer. jox ñu bu leer gis nga bi mujj bi daf ko supprimer. Hmm. Règlement de compte, logique ou prétexte. Tout le monde a remarqué absence ou émission Beglen depuis presque deux mois. D'après le DG Pape Alignan, la cause c'est parce que Matar Diop avait signé un contrat avec la RCS... pour la diffusion du concert du Zénith de Sidi Diop. À la fin, le producteur Matar Diop n'a pas honoré et demande de l'argent. D'après le directeur général, puisque c'est l'animateur Ndiagba qui avait fait les présentations, aux deux collaborateurs Soubatel RCS son émission sera arrêtée tant que le PAD mooy prêt à diffuser mm-hmm. du concert n'est pas rendu le présentateur Ndiagba fera des sorties bientôt pour beaucoup d'éclaircissements man bi mu ñëwee mu tudd ci Matar Diop Soubatel tudd ci Zénith mm-hmm. Amna, amna lu am na li ma ko yónnee comme audio mm-hmm waaye saa waay te ngeen wut terrain de négociation rek du ngeen woote waxtaan ma ne te ngeen woote waxtaan rek ñun ñëpp benn lañu suñu xuloo tey suba ñooy àndaat donc show biir la quoi nañu waxtaan rek actuellement ñun am nañu expérience ci affaire bi quoi. bi ma ko tontoo lii. ma woo Matar Diop suba teel ma ne ko luy sa problème ak Ndiak Ba. mu ne ma ban Ndiak ma ne ko Ndiak RCS mu ne ma amuñu benn problème ma ne ko si parce que il paraît que da nga waroon joxe PAD bi pour ñu diffuser ko. ngay laaj xaalis.

quant à intégralité bi nag du ma ko jox RCS mu koy teg su ñu bëggee dañuy discuter suñ koy teg ñu xool cinquante cinquante su amee ay publicité RTS jël cinquante ñu jël cinquante te Matar nee na ma man ñëwuma RTS négocié wu ma ak Ndiak Assane Lo ak Michel Fall ñoo demoon signé ji contrat kon du Ndiak moo ko présenté Pape Alé Niang ndaxte Matar bu muy dugg suba RTS boobu Ndiak newul RTS. boobu njaag newul RTS. Mhm. am na leneen nag lu ci laxasu ñoom ñaar seen diggantel du ma ci dugg. Mhm. parce que Matar am na lu mu ko wax parce que moom bi muy dem Zénith am na lu mu ñaan Matar ci faveur. Mhm. moom njaag am na lu mu ñaan Matar ci faveur. ak ngir doomam bu feebar bu mu waroon faju ji Matar jàppale ko ci te yàlla tax est-ce que moom dina wax loolu man duma ko wax. kon nañu bàyyi problème di am nga nëbbalale xool yow li la arrangé pour régler sa problème problème bi noonu la demee nag. na. Euh, Mouhamed yaakaar naa temps hmm. leeral na li nga xamante ne moom nga jàppoon ni looloo am ndekete loolu amul donc yaakaar naa ni leer na hmm. c'est sax l'information juste et fii ngeen koy amee beneen euh, plateau boo xamante ne nammeeku nañ fa li nga xamante ne mooy une information boo xamante ne euh, jàpp nañ ni yaakaar naa journaliste dafa war a mën a joxe comme ni nga ko defee léegi des informations juste et ñu seetaani vidéo